mooy sa gis-gis euh, si le fait que Ousmane du bokk ci élection présidentielle 2024 bi. mais kooku lu graaw la parce que euh, population de possibilité de choix d'un candidat qui représente un peu l'espoir de plusieurs milliers de personnes c'est de la dictature ce n'est pas de la démocratie d'autant plus c'est d'autant plus grave que li liñ koy reprocher en vérité li tax ñu indi ci yëpp lépp ay sos la ak ay tappale. mais y a des y a des xamante ne aussi tamit di conforter juge bi lu mu wax aussi. appel à l'insurrection non mais. non le procureur lu mu wax non mais le procureur a diffusé une vidéo boo xamante ne ñu ngi si dégg Ousmane Sonko muy def ay menaces contre les juges contre le président de la République loolu yow mënuloo ko. en tant que légaliste loolu loolu indiwul loolu indiwul kaso. xam nga dama ko indi kaso. non mais dama ne. li ko indi kaso mooy dañu ne dafa violé. dafa menace de mort avec deux pistolets. non loolu moo indi lépp. non non non loolu. loolu. non ba ñu demee ci tableau yóbbu kaso li kaso loolu yóbbu ko kaso li ko yóbbu kaso moom mooy non. waaw xaaral ma préciser lu ko yóbbu kaso. nekkul ne affaire bi affaire Adji Sarr. li ko yóbbu kaso le vol de téléphone boobu la mooy sept chefs d'accusation yu nga xamante ne. dañu wax ne bu mooy bu ñu ko jàppee si mbiru téléphone bi ni def doon euh, agressé benn agent boo xam ne gendarmerie la ñu yóbbu ko procureur bi yokk ci sept chefs d'accusation notamment appel à l'insurrection ak ak euh, yeneen yu nga xam ne trouble à l'ordre public affaire yooyu loolu moom moo ko moo ko def ci ci kaso bi. non ba avocat bi di wax ci ndax sax ne su fekkoon su fekkoon contumace la état Sénégal ni jàppewuñu ko contumace loolu moom moo tax loolu moo tax mu nekk ci kaso bi. waaw waaw waaw non defal naa rek man li may wax mooy depuis 2021. li tax réew mi yëngatu. mooy. ça je suis accusation de viol et menace de mort. te loolu moo indi euh, ak euh, li ñuy wax euh, mu appel à l'insurrection yëpp moo ko indi. mais son arrestation au départ au waaw d'accord au départ la au départ loolu moo indi lii yëpp. te ay sos la parce que juge bi nee na viol amut fu viol amut kenn waru fa yóbbu chambre criminelle. loolu bu ñu ko d'accordé rek mooy lépp château de carte la dafa dafa amul mais am na leneen lu. waaw dafa nank rek non xam nga lu leneen lu am. loolu kenn du ci yóbbu chambre criminelle. d'accord d'accord donc li ñu yóbbu chambre criminelle moom amut mooy du dëgg. ay ay sos la. te loolu moo indi ñi dee parce que bañ ko waxee xale yi jóg di fippu dañoo xam ne lii du dëgg wala dañ jàpp ne lii du dëgg ñu dem ne lii duñ ko nangu. ñu rey leen jàpp leen tëj leen gaañ leen ñu yàq lu bari ci réew mi. mais dama jàpp.